alhamdulillah ina ngeen di sant rabbal alamin dooma baay ki du keneen man naa defar waa xarnu bi yow mi liggéeyal Moustapha bul fàtte andi ak doomi baay Moustapha ñoo ame booti xarnu bi man na xalifatul palaas ba man doom te ami xam-xam ami ko mën naa defar waa xarnu bi Cheikh Moustapha noppee gore talal ndi joor la moome saalu ma kajoor ku laaj ma jox la lay samu te mus la gàndul xarnu bi taa feere njool aminata yaa doon njool aminata Tuubaa di sun madinata yaa weer wetim waa xarnu bi yaa neexa woyta neexata ne xarnu bi amoo ci maas dala fii ba weesu faas yow lañ jébal xarnu bi raa yow nga lu yaa ko yor yaa tegi tur bi daw basar ngir naar goor ak basubar rawantuñ ci xarnu bi mbooleem si xaar wa kibaar yaa tax ñu tabbi ci saxaar ba wàcc tuuba ngan noppal nga ci xarnu bi mu Moustapha robinet yaa ngi wala nga nuy naane kaw saraaj ji naan dootun tapaati siyaan jaajëf defar nga xarnu bi Cheikh Moustapha jumaa ji yaa ko taxawal yaa teemu naax saay ni yaral naa la mi yal nan ko amina war na xarnu bi Cheikh Moustapha yow la Souleymane ba doy desoon jumaa bayti tabaxoon moom ngay defar waa xarnu bi Cheikh Moustapha mbir i jox na lay i daay tubaab yi jox na ay mi daay sultaan nga boole koog wilaay yaa mën a tàggat yal na ngay muurum murid te yàlla booy muurum marid daqi xaadiril murid ndax yàlla naatal xarnu bi allah usul falil asim ku may ngeneel desi la yeem seex fallu mooy falul lemin turam wa doy na xarnu bi moy doomu samsun wa xamar mbàkkeeg bu soobee duñ ko jar moo namp yaari meene ngor mooy bamba tey jii ci bi sëriñ fallu ci di di bàyyum lay royaat léeg rek cosaan nga day royaat ne jaadi xayri mu sinaar moo doon booti xarnu bi sëriñ fallu mooy noobalu islaam fi nun mboolem sëriñ fi moo ci gën donoy Ousseynou wal Asan maay xaadimam ci xarnu bi sëriñ fallu déglul maxlëf cey jikkoom lewet na baay ba mën na doom am na kerta bi sëriñ fallu dem na ba màkkam julikaay aña siyaare ngeen ji baay te andiwul alal de jaay nawleem amul ci xarnu bi Serigne Fallou taalifi baaye may woyam moo doon du si xam moo naan ci géeyu hikkamam siroom ba doy na xarnu bi Serigne Fallou yal na am li mi mi ci nun nu am li nii mi bët ci moom te yal na na yu gën a gëm waa xarnu bi naan tag Ahmadou Lamine moom lañ may sirul masoon xar la feese bene baay baax kolom ci xarnu bi naan tag Ahmadou Lamine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 jommal na mboolem xarnu bi fam na ca baayam yen bu diis te nurul waroomu tiis kuy rooti moo di deggu fees moo mën a mandal xarnu bi sañ bala doon na ca moom jagleega jiitu nob ju doom mbër mu ko suuru daliloom meram xajul ci xarnu bi rijaal yi xam nañ dara jaam su ne jalañ ñuy safi jaam nërëm nërëm di safi baam raamal ko war na xarnu bi yal nañ ko may mbooti lemin fegal ko ay bépp noon ku dégg ñaan na ni amin ndax yàlla naatal xarnu bi mbég maa ngi teeru leen basiir doonay basiiran wa nasiir ku teeru naan lekk ba doo ñàkk lëw ci xarnu bi sëriñ basiru mu am jalaal te am jamaal te xar kanam ba leer kamaal te mbari xam-xam am alaal bu ree nga fekk xarnu bi tar ba ca yuusuf al karim ba buur ba fal ko def ko doom jigéen ñi fartaagoog sagoom ma nga ak basiirum ci ak rawam la daa puree daa firee karaw te mos la jaar fi yëfi ndaw mos faale xarnu bi soobu na ngerum tasawuf ku ko rawan nee na la wif mo raw ña xalan mooma leef saka ñi teewe xarnu bi ilmu daraye la jago mbirum inaa ila la ko noru wilaaye la sango nde ndam amul ci xarnu bi duru ci tere alquran mbaa muy julee ka jàngi ñaan yooyu la baaxoo te ku ñaan mu may la lëf ci xarnu bi Cheikh Muntaxa yal na fi sax ba dégg maam ba tol ni maam ahmadu ba doon mbor yoon ca daam ndax yàlla naatal xarnu bi allah umoo di jenn waay moo jàpp doom def ko ni baay ñoo bokk benn taxawaay ab doodi bambam xarnu bi boo ko gisee muy saamandaay Cheikh Bamba ñoo nu roob jitaay nu roo yaram ne roo sewaay nu roo deret ci xarnu bi nu roo doxiin nu roo waxiin nu roo jëm ak meloog bu ree nga waat ni du keneen Bamba ñëwaat ci xarnu bi moo di walax njaanu jinaan bu leen ko xool gëti ki ñaan ki ñaan du tee béjjëna daan bàyyi ma leeral xarnu bi moo doon tab ga woon ca moom moo doon njàmbaar ga woon ca moom seen bàyyee seede lay jikkoom seede ko lii ci xarnu bi baatin ba raw na saayiram day gaaw a soppi ay mbiram mbir ma ca baaya may mbiram moo yor jëlili xarnu bi yàlla nañ ko dolli ay murid te yàlla raw pexe marid te yàlla mujj def farid ba tol ne gaa yi bi noo ngi ñaan ci yàlla mi samat mu may sëriñ Abdou Samat te may sëriñ Abdou Lahad lu doy doy waa xarnu bi ci mbooti xul uwal falin sëriñ bu mag bëggan ci yéen yàlla bu seen barke neen ndax yàlla naatal xarnu bi te yokk abdul xaadiri fi saayiri wa baatini bi jaayi baayi taayiri moom tol ni jiilim xarnu bi teela ibrahima moom def xari fasun borom ba jot ci turandoom ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem ñu doon saaliin ci sowu jant mbaa feneen yàlla na sëriñ saaliw di seen jant bitim waa xarnu bi mboolem ñu dooni saaliin ci sowu jant mbaa feneen yàlla na sëriñ saaliw di seen jant bitim waa xarnu bi ay bugaak alal ju bari jaaj nañ dara jaal yal na ko Seex Bamba misaal ci sun so ay bom xarnu bi te may nu barke agri daa sol ngërëm ci da bu ko soo mu def xadaa ajaat yi ci xarnu bi te boole luy taawa ke caat góor ak jigéen ci benn baat ndax yàlla sun xarnu bi naat amina war na xarnu bi mbooleem li Seexi Bamba am yàlla nañu gëm te bokk gëm yun dañu bokk te am ngërëm ci xarnu bi Musaa kami seen werakaan moo leen di woy di leen dagaan tey sant tey taga kañaan ndax yàlla naatal xarnu bi waykat yi buñ yabooni xiima wa di xaadimul xadim ngir damay murit di jaam di doom te gën a ci xarnu bi ngir Abdu Mbàkkeem soxna Mbay ak maaram mi ñëpp ngoy mooy baayu sama ndey maa di kenn ci xarnu bi Abdou Mbakkeem Seynabou Mbakkeem soxna Njaay ak maara mi ngeen ji baay mooy yaay baay sama yaay madam bi ci xarnu bi man léebu naa leen kàll leen way naa wolof balake leen way naa araam ngir bëgg ngeen xambamba yéen waa xarnu bi way naa ku sahur ramadan mi yàlla wàcce alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla defal ko xarnu bi juli na ki ngeen ji adanaan musa ta ñaan ko banu naan géwal su jaaxle war ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi sëñ bamba defar nga say bokku defar aw jaambur defar bawal defar kajoor ak njaambur bamba defar nga say bokku defar aw jaambur defar bawal defar kajoor ak njaambur déglu mox la bokk yi sëriñ bi seexal te lu ma lim limi du tax ma jeexal sëriñ mamar jaaraay magam ci sayir moo ko seexal na mbakka sanji saam toñ mesra gannaaw ba taw yaa nga njor jëndi maam Cerno Ibra Faati doy na xalifa Bamba ko ay moroomam deeba maam Cerno Ibra Faati doy na xalifa Bamba ko ay moroomam deeba su Bamba doon Muusa Cerno dib Aarona yoon wam awaag wa seex aw soreena maam Seex Anta Bamba ko may moo ko joxoon Daaru ak gaawaan burub julit le ko defan muy daane ku nara songong moom mu foof ko daane sëriñ aafiyaay boroomi kiimaan bamba ko seexal delu def ko ilimaan su bëccëgee muy noote yoonu jàkka su su guddee muy naafila ay rakka ak yaari rakkam ya seex corook balla corook bamba taxoon ba daaw ñu daw waxi biro cheikh balla seexe fa bawol fa jaaxal cheikh corone fa ndar ma seedal koy taaxal seetal ma cheikh ma samba bàkke caat mi bamba ko seexal yal na yokkoon mi yey kem yaak taaram ba ayati kaalaam yey nuroog cheikh bamba seetal ma cheikh ahmadu ndumbe mbàkke bamba ko seexal soob ko yoonu barke seetal ma seex Ahmadu Ndume Mbàkke Bamba ko seexal soob ko ci yoonu barke moo daa dundal murid ak Tijaan yi ak Jurbel ak Tuuba di may way ñaani seetal ma seex Ahmadu Ndume Mbàkke Bamba ko seexal soob ko ci yoonu barke moo daa dundal murid ak Tijaan yi ak Jurbel ak Tuuba di may way ñaani waxaniyal manihu kula durri yan huli xayri durra kal mudri ataaba sirri wa ataaba jëhri kitaabu rabbi wa ataaba dëhri nawaytu an adlo asafa sari lahu bi wa jaadali bi yusri naajaytuhu tanajjal multari qablu bi wa usmalil qurri adani allahu bi xayri makri wala xururin asiman min nukri limunsil qur'ani yan usikri maha rasuli wa yan usukri sakatu rabbi wa ababe kusri wali nabi nasmi bi wa nasri karamati ubu nabil bari malikil bahri bi wal bari radali khayri law kulla sirri bi jahi wa jadali bi sirri lillahi kulli bi salati suhri wal asri wal maghribi bahda turi kulli ya ladai sa'i wal fajri illahi bil muhtari babil ajri وليهب سلامة وعافية وجعل حياتي حياة صافية أهل أمور أمور صحبي ثم أمور المسلمين ربي وتحبنا وخونا وكن لنا وهب لنا أن ختام ربنا وسليا على النبي وسلم واخلي بآجات كل مسلمي بركة برم تبا نغي نيان سيج منتخب بك يالنا بياك تيوتن عندكم موم